Madia gaay abi sifle na diggante Madia diggante Madia ak Géej ndeysaan Madia Madia moo féete à gauche Géej moo féete moom la njaakaak lool Madia Géej eh Madia ngi koy forcé Madia Géej Madia Guedj ndeysaan Madia Guedj Guedj moo bàyyi ko Palmarin Guedj Madia bàyyi Palmarin Ngourouman ndeysaan combat dëgg bi la dëgg bi Palmarin la ndeysaan Madia Madia Guedj ndeysaan Jo production moo fi woote organiser ay combat nommé aca abi sifle waat na diggante Madia Guedj e Madia sol na ko naar Madia e ko e Madia fos Madia Guedj abi sifle na dina ñëw leen si digg géew bi waaw waaw abbi sifle waat na ndeysaan nee naa leen géej waa Palmarin ngéej la ma ja nekk waa Palmarin ngun maan combat dëgg la dëgg bi Palmarin waaw waaw di bëgg waa Palmarin ngun maan sama grand lu samle maa ngi lay ziare gaay bu fa di lambu Zambro le 18 incha allah le 18 novembre fii ci Palmarin ñu tegal mbëggee nag ak trente cinq mille ndeysaan animation mbay ak lu man xabak Baboucar ndeysaan ci bés boobu ñu wax se décoré le grand champion Babylone ñu gën ko wax si Souleymane ak le grand champion Alizé bokk na si décoration yi é Madia da koy génne saaku yi wala é é Madia génne na ko saaku yi géej jël avertissement wala géej am na avertissement

ehe Madiang Guedj Madiang tagg na ko Madiang tagg na ko de Madiang tagg na ko eh mu ngi koy dajale da koy tegal seize wala da koy tegal seize wala caxabal eh Madiang Madiang Guedj da koy daan eh Madiang daan na Guedj Madiang daan na Guedj